Euh, vu que dëkk bi société bi nu muy doxee yaakaar naa ne ñuy renforcer sécurité bi par rapport ak euh, violence bi ñuy dégg jigéen yi ñuy rey euh, même enfants yi nga xam ne ñu ngi leen di ñu ngi leen di violer et que c'est pas normal aussi donc li ñu si mën a wax mooy que il faut que l'État prend des mesures par rapport jigéen yi nga xam ne ñu ngi leen rey que ça soit. euh, ce qu'on appelle le banditisme ou ce, ce qu'on appelle la vie conjugale quand nga xam ne seen i jëkkër ñoo leen rey et c'est pas normal et que yaakaar naa ne góor aussi bu ànd ak conscience tranquille yaakaar naa ne mënoo jël soxna ba pare ak ling nga si daj lépp ba pare nga war bi ko ñu naan kii euh, jëkkëram moo ko rey loolu aussi dafa ñaaw Bon, le Sénégal, il y a de la sécurité, mais euh, il faut renforcer la sécurité. Parce que c'est un pays de sécurité, mais la sécurité, de de donc il faut que l'État prenne des mesures après Nidjem Comment on peut faire pour organiser des centres pour former des jeunes qui vont apprendre euh, de faire la sécurité. Et que le secteur est aussi une place pour que nous, le secteur bu ñu nekk ñu mais sinon ni population est demain et que à chaque fois on vit que la population sénégalaise ça augmente de plus en plus donc euh, il faut renforcer la sécurité

Sall sécurité. moom defe naa ne amul ndax ñun suñu secteur bii rek dangay ngay waar lu ne nga fiy gis waaw tali bii lu ne nga fi gis te tali bii ci boppam dafa war a am ay semis yu fit war a taxaw ndaxte toujours këf nañu portable këf nañu saak rek ngay dégg. ak ray bi moom li ko war a mooy ñàkk de éducation bi ma la waxoon rek moo waral ray bi ak lan. éducation amuñu ko ci biir kër kon so génné ci mbéd mi amul éducation. jigéen da yaakaar na ni jigéen moy suñu yaay. moy suñu lepp jigéen ni lañ leena a sutura wal leena war ma waaw jigéen ñi daw daw daw daw bay bëggati fajar gi bu ñu yeewoo ñu leen di kar guddi bu ñu yeewoo ñu leen di kar té ñun suñu do nga ñu taxaju wa waye nak ben sécurité amul ci Sénégal mom xana Macky Sall am sécurité wa ñun ñi dëkk ci dëkk ci banlieue bi sécurité mo amu parce que boo boo ko jàppee comme sa rak wala nga jàpp comme yow jigéen moo la jur am na yenn yoon xam si doo ko def jigéen quoi boo xalaatee ne am nga rak te ñi ngi fee ñi ngi feneen ah ak sa waajur yéen yi wax dëgg doo ko xalaat pour def ko doom def ko jigéen moom. am na ci. Mm-hmm. ñàkk doolu quoi. Mm-hmm. pare bari ay bëgg-bëgg tax yoo góontoo yoroo dara tamit. ah moo gëmul yàlla dara foo agressé. waaw sécurité bi tamit des na quoi parce que boo xoolee euh, suñu côté yi ndax mu gën a ñaax sécurité mooy peut être bu dee guddi benn heure bi am na koñ yoo xam ne boo fa duggee tey guddi day lëndëm parce que amul lumière insécurité mu ngi njëkkee ci lumière parce que koñ pour man ah, gox yëpp boo koñ boo dem war na am ay lumière bu ko defee ki sax dina ñemee dox ndaxte koñ bu amee lumière booy dox yaakaar naa nikki ki ñëw jëm ci yow di nga ko gis. ki jëm si yow nag boo gisee xëy na balaa mu egg si yow yow di nga fagaru mu nekk koo xam di ko xam mais nit des fois dina xam la mais yow mi muy agressé doo ko xam ndax fi mu lay agressé moo lëndëm waaw loolu lu ñaaw la parce que tey en tant que góor man lay waxe parce que damay wax ne nit ku nekk nag bon yaa xam li nekk si yow mais bon dafa ñaaw ñu ne la góor bi sax moo tëddal kii rey ko wala góor bi moo violé moroomu góoram et c'est pas bon da gis ngay dégg ñu naan la xale bu am 7 ans 5 ans 6 ans benn kilifa wala benn mm, grand ba nga xam ne am na au plus de vingt ans et plus ñu ne la moo ko doon tëddee wala moo rey diw loolu dafa ñaaw déjà et en tant que Sénégalais ñu ngi koy ñaawlu bu baax parce que baaxul si ñun aussi en tant que seen ngay gis ngay dund loolu mais li ñuy wax rek Sénégalais en tant que affaire bi toujours famille euh, il ne s'intéresse euh, plus quoi bala mu laa intéressé foog mu laal sa famille Euh, li ñuy ñaax la président de la république mooy que euh, mu jël lépp xam ne Sénégal on a besoin de la sécurité surtout sécurité jigéen yi parce que boo xoolee jigéen yi sa temps yi nañ leen rey ñaaw na trop et que c'est pas bo à voir ñu naan la euh, pays en tant que un pays comme sénégalais comme Sénégal ñu naan la bon on a en train de tuer les filles nii nii quoi c'est facile quoi léegi nag mesure ba ñu mën jël mooy que ñuy def benn centre de formation ba nga xam ne on va renforcer la sécurité sénégalaise ñuy jéem a xool nan la ñu mën a defee ba nga xam ne tey sax ku dégg ne rey nga nit buñ la jëlee ëllëgam jaar ma def lu luñ lay def yaakaar naa ne dootuñ dégg fen ne am na kuñ fa rey. comme mbokk internet yi yéen ko gisandoo rey gi bari na nit ñi ne na nguur gi yokk sécurité bi kon ñu ngi leen di jox dig daje ci biir King Production.